xamante nañu mbégte ñëwaat ak yéen ci l'invité de 7TV soir euh, sunu gan egsi ñoom plaisir euh, di recevoir euh, Ibrahima Ndoye il est ministre conseiller à la présidence de la République nekk vice-président du conseil départemental bu Thiès Ibrahima Ndoye ñu ngi lay nuyu di la dalal ci sunu plateau avec toujours le même plaisir merci beaucoup Mamadou maa ngi lay nuyu di la sant bu baax ci invitation bi di jéggalu tuuti aussi ci retard bi. Mm-hmm. parce xam naa am naa retard tuuti di baalu àq ñëpp. di baal àq ñëpp di profiter ci occasion bi aussi ci fête bu mag bi ñu jëm suba. Mm-hmm. fête bi ñuy wax traditionnellement Ashura muy Tamxarit. di ci ñaanal ñëpp di baalu àq ñëpp di baal sénégalais yëpp di ci ñaan yàlla ubbi ci ay xéewal yu bëree bëree bëri. fekkee ko ay déwéne déwén déwén yoo xam ne dinañ ko mën a dinañ ko mën a feete li ci des nag aussi euh, naxar dab ñu ci diggante bi fan yi yëpp nga dégg li nga xam ne tey jii lu bees la fële ci dëkk bu ñuy wax ngën saar nga xam ni accident bu metti metti metti am na fa mm. di ñaanal euh, njaboot ci ñi nga xam ne bàyyi ko nañ ci yal na leen yàlla xare aljana euh, yàlla def tàppe dënn yi ba njaboot gi nga xam ne ci ñoom la dal directement ñu ñu muñ ko di jàll réew mi yëpp di jàll Sénégal yëpp di jàll suñu mbokk yi nga xam ni aussi ci géej gi barke dem rek ci wakaam euh, lu mat presque dix huit personnes lu mat ñaar fukki nit presque mm-hmm. génn nañ ci àdduna boo xool euh, dañu doon dem defe naa di seeti daanu seen doole ndogal fekk leen ci loolu yëpp euh, di tiis di naqar boo nga xam ni yemoon na ci suñu réew ñu di ci profiter pour jàlle ñëpp di ñaanal ñëpp di ñaanal ñëpp di ñaanal ñëpp yal na leen yàlla xare yàlla. jërëjëf amin di ñaanal ñëpp yàlla na ko borom bi nangu a Ndoye euh, ci seen euh, régime ci seen nguur depuis un certain temps dafa mel ne dafa nekk benn chanson ñu euh, baal ma ko ma ko mën a expliquer bu lu mel ni amee. dañuy incliné wu ci mémoire ñu fi am mu doon lu metti lu tiis ñu mhm. euh, wax ay mesures rappeler interdiction yi interdit mhm. yi mais malheureusement peu de temps après les mêmes habitudes reprennent ñaari exemple yi nga joxe muy lu metti muy accident de la circulation au lendemain de bi amoon jamono jële si kilo jël ñu ay mesures yu metti mhm. tey jii nii fan lañ ci toll immigration euh, clandestine bi aussi malheureusement les jeunes continuent toujours di jël li nga on dit waaw loolu comme ni ma ko waxee rek dañ koy mettitlu parce que naxar moom la paasewul ci conditions yu mel nii ay bakken wàcc ci euh, loo xam ni lu ci bari mu ngi relever ci responsabilité individuelle maanaam nit parce que euh, il est vrai que at yëpp ñu ngi koy jooy ñu ngi koy wax effectivement ni nga ko waxee aussi à chaque fois ça fait l'objet waxtaan bu yaatu mm. gouvernement jël ci ay mesures ah, lu ci bari di di affaire yi di am di amati euh, je crois que deux respons responsabilités yi c'est partagé bi ci jiitu d'abord responsabilité état parce que état aussi euh, nguur moom la ñu dénk. Mm-hmm. bu ñu amee ay problème dafa am ñu ciy wóolu jiital leen jox leen ko. jox leen seen responsabilité ba mu mat sëkk war ko doxal ñu jéem a seet lu mel ni nan lañ koy éviter mais liñ ci liñ ci gis lu bëri. bu ñu annoncé ay mbir mu taxaw ñëpp rafetlu ko application bi dafay des. Hmm. application bi nag. mën na des parce que am na lu ñuy wax laxisme maanaam euh, doxal bi ñu ci war a dox duñ ko doxal. am na beneen boo xam ni aussi c'est lié à notre culture. Hmm. maslaa bi aussi bari na que ñun ñëpp a yem. buñ ci tey sa mbokk tey jii policier tey ko wala gendarmerie li ngay njëkk def par exemple ñu ñi nga xam ne sax ñu ngi ci responsabilité. ba ci mesure yi ñu euh, nga xam ne mooy porte bagage yi après ñu mujj ci ñaan. waaw ñu mayaat ñu ñu dem ak moom ba ci kanam. ñu bari dem nañu. seeti xalif généraux yi. Mm-hmm. waxtaan sunu liggéey dema na nii liñ ci daan am. amatu indi fi ay coow finalement mooy maslaa bi rek. Mm-hmm. tout sa régime. au masla parce que c'est ça aussi sunu culture la nañ koy waxtaane nañuy tolérante nañuy jàppalante nañuy dimbalante et cetera ba finalement lii am lépp nag dañ koy delloo suñu borom parce que dëkku ngëm moom ah. lu ci manti amit dañu koy delloo suñu borom ñaan rek yàlla dimbali ba ñu ba lu ñu mel ni ñu bañ ko di ko gis ah, loolu benn point la accident circulation yi mais également euh, géej gi li muy jël dinañ ci taxaw tuuti ba mu ko permettre parce que gis nañu que ne depuis un certain temps gars yi ñu ngi pointé du doigt euh, régime bi fi nekk mm-hmm. par rapport ak échec bi nga xam ne def nañ ko ci emploi mm-hmm. des jeunes jàpp nañ ne les jeunes sont assez désespérés amatuñ benn espoir mooy waral tey jii nii ñuy jël euh, géej gi pour génn Sénégal waaw xam nga géej moom ñi koy jël ñu ci bari parce que doomu aadama bu fekkee xam nga ni lii boo ci duggee lii moo la ciy fekk nga def ko moo tax ma wax la sunu culture ak sunu responsabilité individuelle ku ci nekk ak sunu njaboot ñun ñëpp mm-hmm. boo génnee li nga xam ne waru garulu état beeg yëpp tout euh, yu wax l'échec de l'emploi ben échec emploi amu fi yenn yi parfois dañ koy exagérer rek mais ça dépasse largement affaire nguur ak affaire parce que il y a dix ans quinze ans wala vingt ans pratiquement pendant des années lu mel nii moom motivoon li nga xam ni peut-être ay opposants la ñu wala ñi nga xam ne ñooy nekk ci société civile yi di jël en charge question yooyu am lay Wade indi Ablaye Wade waa PDS nii waa et cetera et cetera. Mm-hmm. ça revient aussi. actuellement heure bu ñu demee ba xalaat ni yëf ni jeex na donc war na à un moment donné ñu doy ma toog parce que bu ñu duggee ci angle de politisation sujet yu mel nii. képp ku yàlla def nga yor réew mi aussi tu vas être confronté au même, problème mm -hmm. les mêmes rengaines mooy ñëwaat même wax ji mooy amaat dénonciation dénonciation à un moment ne il faut savoir s'arrêter mais mm-hmm. je crois que man dégg naa benn témoignage benn reportage enquête bu ñu doon def ci phénomène bi bu yàggul ma dégg benn nit bu ci def témoignage mu ni moom dëkk nag koo xam ni commerçant la ay millions la investir ci li mu doon yor du mag noonu sax jeune la toll na ci dooleem ak et cetera mais il a été surpris moom bi mu déggee ni jàpp na ci ñi ñi nga xam ne ñi doon dem ci lay ci ci ci la bokk affaire bi mm. jaaxal ko lool quoi parce que donc finalement est-ce que ñàkk la rek c'est un phénomène boo xam ni dans tous les pays du monde pratiquement am na fa boo demee États-Unis les Mexicains partent en masse mhm, mhm. Euh, <laughs> di di quitter euh, euh, seen seen pays yooyu le Mexique ak zone boobu yëpp pour jéem a daw États-Unis jusqu'à ce que même Trump ni yoon nañu dressé benn mur et cetera en Europe c'est exactement la même chose dans certains pays de l'Est c'est lié à des conditions parfois de guerre et cetera ñu ci bëri dañuy dawoon mais fi ñu leen mën a tegee baaraam est-ce que du ci surveillance bi maanaam fexe ba xëy na dem bi wàññeeku bu baax. maanaam bu fekkee ne euh, code yi ñi ngi def seen liggéey normalement amaana ñëpp du ñu mën a rëcc bay dem. je crois que pays d'accueil pas pays dakk yi. Mhm. maanaam la diaspora africaine. Ouais. africains yi ak sénégalais yi particulièrement yi nga xam ne ñoo nekk Europe ñi nekk États-Unis ñu nekk à un moment donné ñoom tamit war nañu participer encore davantage ci sensibilisation bi wax dëgg parce que souvent di nga gis dix personnes peut-être kenn moo ci réussir immigration bi et eh bien parfois c'est l'arbre qui cache la forêt ñu jàpp ni xëy na c'est l'Eldorado parce que parfois ni ñuy gëmloo nit ñi ni loolu la condition yi neexee xaalis bi noonu la yóbbee mm. et cetera ça ne correspond pas aux réalités mm-hmm. donc baax na aussi je crois que gouvernement yëpp que ce soit d'ici et d'ailleurs ñu jéem a xool comment mettre à profit l'expérience bi nga xam ni les déjà ñi fa nekk sur place am nañu ko parfois xam nañu ni c'est pas aussi évident que ça mm-hmm. ni mu daan dem bu njëkk ak léegi bokkul ñu jéem a seet na lañ koy waxtaanee sensibilisation bi gën a yokk loolu gën a yokk foofu di moins joxe des exemples concrets ci li nga xam ne mirage la maanaam mm-hmm. Eldorado boo xam ne c'est juste ci ci xalaat yi la nekk ñu jàppandi foofu boo fa yeggee rek sa àdduna yëpp. mais tey jii nee nañu ñu ëpp ñuy tukki ay nit la doon liggéey ci géej gi maanaam nappkat yi ñoom li ñuy wax bu ñu joxee micro mooy que géej gi amatul napp amatul jën yenn saa yi risque même leur vie dem ba Mauritanie foofu tamit son pour pourchassés persécutés donc ay nit la yoo xam ne xam nañu géej gi il espèrent peut-être que euh, li ñu leen dindil ci seen gémmiñ ki doon dundee mooy jën yi jamono ji en traversant l'océan dinañu am une vie meilleure. du géej gi amatul jën moom yooyu ay ay wax la rek parce que wax géej gi géej gi moom mu ngi indi jën. les bateaux étrangers. waaw mais d'accord mais c'est ça foofu la waxee. mais ci joxe dafa bëri. ma ne partout dans le monde ça se passe de cette manière sa à dire que Sénégal c'était pas un pays isolé. Mhm. nekkul ci benn kii boo nga xam ne rek dañ ko berate loolu. ça a tout le temps comme ça. on nous apprenait à l'école que les côtes sénégalaises sont poissonneuses. waaw mais non xam nga dafa am benn aspect bu ñu dul intégrer souvent ci euh, évaluation bi. Mhm. mooy y a une croissance démographique extraordinaire. aujourd'hui le Sénégal n'est plus le Sénégal de 1976 mhm. ou le 90 ñu ngi ci presque 17 millions d'habitants c'est quelque chose mhm. il y a une explosion démographique extraordinaire loolu da nga koy tenir en <laughs> compte bu fekkee da ngay def yenn analyses yi ou la ngay apprécier yenn fay mhm. je crois les centres de formation yi nga xam ni le gouvernement actuel sous la présidence du euh, euh, de Macky Sall Euh, sous la direction du président Macky Sall nga xam ne def nañ ko ces dernières années euh, muy formation muy euh, njàngum science et cetera tout un ensemble de de de de disciplines yoo xam ne dina mën a diversifier les métiers je crois que ni loolu aussi lu am solo lu ñu mën a accompagner. Mm-hmm. gouvernement bi gën ci taxaw jeunes yi gën a bëgg. formation ñu jéem sa je crois que loolu aussi c'est des solutions alternatives mhm. yoo xam ni initier nañ ko nañ ko jéem a euh, renforcer jéem a jëlaat xaalis bi yokkat ko ci encore mais nit ñi aussi accepter mhm. dem di defi formation mais léegi soo génnee université ñu ci bëri dañuy jàpp ni demee demee war nga mën a am liggéey. Mhm. soo gisee. ko doon yéen doon loolu woon aussi. système bi ni mu bindoo woon aussi amuñu woon culture entrepreneuriale mais aussi euh, les formation données à à l'école à l'université daawul permettre. aux jeunes mooy formation rek formation moom c'est c'est c'est c'est c'est ma ma ma je viens de la Chine. j'ai mhm. fait quarante jours là-bas euh, province yëpp yóbbu nañu fa. ñuy visiter di xool mais parfois maa dem naa ba am fa problème portable. Mhm. so problème écran bi yàqu parce que musée bi ñu duggoon di seetaan comme noir yi ñun bëriwuñu woon. Euh, tu faisais l'objet d'attraction ñëpp dañ doon daw ku nekk bëgg photo ànd ak say doom et cetera ci la benn vieux. Mhm. daaneel sama portable mu mu yàqu deux jours après. on est retourné ci sunu résidence yi après j'ai demandé fan lañ koy defar mais bi ñu àndee bi ma gisee ñuy defar portable j'étais j'étais j'étais vraiment très très très très impressionné ay xale 16 ans hmm? pratiquement ñoo ko defaral le des je n'ai même pas fait 30 ou 40 minutes foofu ñu ñëw monteel la ko defarale yépp tout hmm. donc cela veut dire que ñooñu même à dañu jàng métier def ko am si performance et hmm. tout donc je crois que ñun aussi à un moment donné war nañu mën a xoolaat le système je crois que à ce niveau précis franchement c'est pas parce que <laughs> ñoo yor nguur gi ah, ba tax ma di ko wax euh, il y a des efforts immenses qui ont été faits par le monsieur le président de la République Macky je crois que ce serait euh, vraiment important euh, ñu moyens yu mel noonu ñu renforcer ah. il y a une université Saloum ak ak mm-hmm. tout un ensemble sur le plan agricole ak ñu nekk ñu dem ko baax nañu formation bi c'est important nit ñi gën ko def ah ñu dugg ci waxtaanu politique bi actualité politique euh, bi ma la invité ba affiche bi euh, commencé jàll euh, mm-hmm. j'ai de des <laughs> des des retours ay nit yu ma ne Ibrahima Ndoye de la présidence xanaa candidat la moom it à la présidentielle je sais pas na xamul tax ñu wax ko dañ la ci yaakaar wala xëj pëccëxoo gi moo bëri ba mais comme que je vous ai en face de moi je je vous pose la question euh, par rapport ak situation bi jamono jii nii déjà euh, au niveau de benn Bokk Yaakaar candidature yi bëri nañ. qu'en est-il de vous après ñu soog a xool ñeneen ñi. non merci maa lay maa ngi lay remercier bu baax moom ci ci sa yéene bu rafet ak ñi nga xam ni woon nañ la di wax mais xam nga suma xarit Thione Seck na ko yàlla yërëm fa mu tëdd. Mhm. dafa daan wax ni ganaar. des fois dañ koy jay ba muy dox di mbëkk mbëkk nag ba finalement loos bi dam <laughs> ñu daan bëgg di bu defa di alonkotiba non non noonu nit day xam boppam euh, je ne suis pas candidat c'est vrai am nañu ma woo def naa ci li ngeen intitulé mhm. candidat de euh, Benno voilà voilà et cetera non non non non non je suis loin d'être candidat xalaatuma ko géntuma ko réewewuma ko je ne suis pas je ne suis pas comme. Euh, est-ce que aussi peut-être parce que c'est dans votre camp am na ñu bëri ñoo xam ñu ngi déclaré seen candidature euh, déjà euh, am na ci ki njëkk a fésal boppam mooy Abdoul Aziz Diop te nga xam ko bu baax. vous avez travaillé ensemble. aujourd'hui quand vous dites ginaar day xam lekkam. ndax day xam boppam day xam boppam ndax da nga jàpp ne ci ci loo boobu nga ko mën a boole. waaw parce que non je ne veux pas personnaliser les choses. Mhm. Aziz c'est un frère. c'est un ami. c'est vraiment un frère avec qui j'ai beaucoup de choses dans le cabinet de monsieur le président de la République. Mhm. c'est un cadre de haut niveau c'est un grand intellectuel euh, duma sax sori ci yoon yi parce que liberté individuelle aussi nit daf ko moom mhm. nit dafay moom boppam xalaat na ni def na da mais seq ndax moom loo xam ni le soir bi mu génnee ce fameux dont on le tant soo ko laajee du ko wetti plus pratiquement vers une heure du matin mhm. laa ko woo ma ko wooyee ni ko ah moom frère mu ne ah man que su ma lay woo heure yi de xam nga ni am naa cër ci yow mun ma waaw ah, man que ah je ne crois pas que ni nga doxale yoon yoon bu baax la mhm. mu ne ah man que sama digganteeg yow sañ naa ko bien sûr ma ne ko yoon bii c'est pas le bon chemin vous pouvez avoir vos ambitions man nga doxalee nu mu la neex mais ma pendant douze ans man je sais que fi nga teg président Macky Sall xam naa ko mhm. parce que nit aussi boo ko joxul cër respecté wuloo doo def ay ouvrage ci moom Aziz Aziz il était passionné ci par la politique surtout sociale du président Macky Sall. Mm. parce que loolu mën naa ko témoigner parce que dama doon nekk ak moom vingt quatre heures mais nit la comme man comme yow ak keneen dafay juum man gëm naa ni jusqu'à preuve du contraire. lan ngay condamné dans son fort intérieur. su toogee wala audio bi bi génn lan nga ciy condamné. non non surtout l'audio mhm. parce que mu nekk candidat c'est une affaire personnelle. am na ci droit. indépendance la kenn moomul dëkk nii mhm. xëy na ku ci nekk man nga xalaat ni nii lay doxee mais mënuloo ànd ak nit pendant trois ans ngeen def opposition bokk un combat politique combat démocratique nga signalé ci taxaw comme ni mu ko waxee ci vidéo bi nga nekk deux ans parce que quand même quand président de la République vous prend. Mhm. teg la ci wetam. nga nekk dans votre cabinet à ce niveau de responsabilité pour servir votre pays honneur mënu ko ëpp. parce que au-delà des atouts oto xaalis ak yi salaire ak yooyu yëpp baax na c'est vrai c'est vrai parce que bokk na ci parce que loolu mooy atour yi aussi daf ci war a ànd mm-hmm. mais je veux que ni loolu honneur mënu ko ëpp parce que y en a qui ont ñun ñoo nekk ci kanam xëy na ah, ñu di ñu gis mm-hmm. mais am na ñu nekk ci biti surtout au niveau de l'Alliance pour la République mm-hmm. mooy nga xam ni parti bi ma gën a maîtriser gën ci xam gën ci partager ak ñu bëri Il y a des gens qui ont fait dix mille fois plus que ce que nous avons fait. Ils n'ont même pas la chance de serrer la main au président de la République Macky Sall. Pendant douze ans qu'il a été chef de l'État ñooñu aussi qu'est-ce qu'ils auraient dit bu fekkoon jox nañ leen micro ñu taxaw. wala nga laaj qualifié non non. parce que opposition bi ce qu'ils disent mooy. Hmm. Euh, dañoo ne bato bi ba bato bi di waaj kii ñu commencé. génn j'ai trop de loolu. mais j'ai trop respect pour Abdou hmm. Aziz. tu sais xam nga nit. soo ko xamul ee eh, nga koy wooye man je ne peux pas vivre ak nit ki vingt quatre heures sur vingt quatre di partager ak moom ma xam ban passion la am ak fan cofeel la am ci président Macky la mu am njuumte mhm. ma ñëw rek ni ko dem nga je ne le ferai jamais mhm. parce que je sais que dans son fort intérieur soo toogee wet même s'il a fait d'autres interviews il sait très bien que la démarche qu'il a prise c'était pas la bonne moom xam na ko il en est conscient mais moo mel noonu xam foo tollu xam aussi seen parti bi ni mu bindoo moo ko euh, frustré parce que aussi kilifa la yaa ngi koy wax wax publiquement devant le chef de l'État kenn jug fële koo xam ne on lui a pas donné la parole toroxal ko ci biir nit ñi loolu aussi da ngeen ko waroon a condamné déggoo man la du ma def jugement ci moom cest à ne parle pas des autres oui ma ko seexal il s'appelle Abdou Aziz Diop mm-hmm. il a été conseil spécial il a démissionné il a tout il est libre de faire keneen ki mu doon waxal il s'appelle le président Macky Sall mën naa wax ci ñoom mën naa ci témoigner. Mhm. et je suis persuadé que suñu delluwaatoon euh, disque bi arriéraat ko ba le même jour Aziz ne ferait pas la même chose. même s'il dit le contraire. parce que dans son fort intérieur je sais très bien qu'il a beaucoup d'estime et de respect pour le président Macky Sall maintenant nag nit nit la. Mhm. ñun ñëpp. ñun ñëpp laa la wax tous que nous sommes ku ci nekk am na lu la war a mën a naqari ci biir parti bi ak fonctionnement état bi ba nga war a mën takk sa bagage dem ñun ñëpp nag mm-hmm. ñun ñëpp tout ce que nous sommes dafa am lu ñuy waxtaane suñu biir dafa am lu ñuy taxawee j'ai toujours donné l'exemple de de monsieur Karim Wade et Samuel Sarr ñi daan siège conseil des ministres nekk PDS nekkoon ci gouvernement Abdoulaye ñu bëri xam nañ li may wax il ne se parlait pas pendant longtemps pendant longtemps kii doomu Ablaye Wade la Samuel Sarr ak Karim Wade bien sûr kii doomu Ablaye Wade la il est ministre d'État dans le gouvernement kii il fait partie des financiers et des conseils d'Ablaye Wade il est ministre d'État dans le gouvernement mm. mais pour des raisons de d'ego ak yu nekk jàppante nañ mais l'image la plus saillante bi ci gën a am solo moo war a nekk njàngat aussi ci politique mm-hmm. ci ni ñuy doxalee mais quand il a de recherche fële ci mais da ngeen di xaar ba génn ci biti door a te ku nekk donc euh, fii am na noo xam ne ku ci nekk boo ñu doxalee rek da ngay jiital en famille. ah le linge sale mais bien sûr moo tax ma la sama m'a fait mal. Mhm. ça m'a fait mal mënoon na nekk keneen du ma ci wax mais Abdou Aziz xam naa fan la toll. juum na. je ne l'ai jamais soutenu dans cette voie mm. te bari na ñoo xam ni man woo nañ ma xam nañ sama digganteeg moom ñu bari naqarloo nañ ko. Mm-hmm. metti na leen mais je je crois que ni peut-être xëy na un jour ou l'autre uh-huh. peut-être il va se retrouver avec le président. <laughs> espérons il a déclaré sa candidature. malheureusement ça n'a pas été trop pris au sérieux ndax bi ñuy def audition yi woowuñu ko loolu sax metti na ko. Euh, donc ça nous amène à la suite des événements ak ñu auditionné mais avant loolu. Mhm. li waral loolu yëpp acte nga xam ne président Sall posé na ko en décidant de renoncer à sa candidature pour 2024 loolu yow euh, personnellement noo ko dundee. waaw nan laa ko dundee euh, bu dee dans le cadre général comme ni ko ñëpp rafetloo. Mhm. jàpp ni président Macky Sall xëy na li mu def baax na ci parce que am na lu muy éviter ci réew mi. Mhm. encore que man du ma partager loolu yëpp sax d'ailleurs parce que quand même y la stratégie de la terreur bu nga xam ni moom la ñu instauré woon ci dëkk bi à telle enseigne que on avait sentiment que bu président waxee dëkk bi dafay tàkk moi je ne partage pas ce point de vue. waxoon tamit dara du xew. président Macky la bu ma ci tàgg woon man. Mhm. man personnellement laay wax de parce que nekkuma fii parce que ñëpp yuuxu na tàccu dama war a tàccu non. Mhm, mhm, ça c' est. su ma ci d' accord su ma ci tàgg woon. quel que soit alpha. gëm naa ni président Macky Sall dafa waroon nekk c'est pas par rapport à la paire ce n'est pas par rapport à lui-même mais par rapport à l'intérêt du pays et l'histoire l'histoire mu ngi sunu kanam l'histoire ne jugera espérons que l'histoire ne vous donne pas raison émotion bi nañ ko espérer émotion bi jaru ko mhm. parce que ñu bëri tàccu nañu yuuxu fii na nekk candidat le lendemain il n'est pas candidat ku nekk yuuxu mel ni du woon moom y a un grand paradoxe mais on a écouté Ismaïla Madior Fall ne avec du recul lii mooy meilleure décision président war na jël personne naa compris Ismaïla Madior Fall c'est Ismaïla Madior Fall Ibrahima Ndoye c'est Ibrahima non mais ce mooy damay confirmer li nga wax que ne ñi doon wax démb na bokk te ñoo taxoon naan ils sont contents maa le jour bi muy jàllale message am j'ai fait un article pour demander au président un temps soit peu. Mhm. C'était par rapport à l'histoire parce que j'avais l'information. Je, je, savais ce qui s'est passé. Ah. ah. bien sûr, je savais ce qui s'est passé. Non, c'est pas une question de cercle restreint. Je ne suis pas du cercle restreint bu ñu doon <laughs> jox ay confidences. Non, Je okay. pas cette, prétention. bokkuma ci xam loolu. Mais depuis la Chine, je savais déjà que le président ne serait pas candidat. Hmm? Oui. c'est pas important. Li am am na. L'image du Sénégal rehaussé nañ ko le plan le président Macky Sall am na ci ndam bu rëy ce qui est vrai c'est que nous partageons ce plaisir mais dama ni l'histoire jugera vous avez vu ce qui se passe au Niger ouais tàmbali aujourd'hui kan lañ doon jël comme exemple Niger on parlait non non bi ñuy pousser président Macky pour mu bañ a présenter waat kan lañ doon jël exemple c'est le président Youssouf non mm-hmm. qui a fait deux mandats. Et qui est parti. qui a été un pion essentiel dans la sécurisation de la région. Mm-hmm. di liggéey liggéey bu am solo au niveau du Niger dans la sous-région. mais on a poussé parce que cosmétique démocratique bi. ak des activistes à n'en plus finir jël suñuy paramètres teg ko ci. loo nga xam ni aligné ko si euh, seen culture culture occidentale ak yeneen ba fàtte ñun suñuy valeur qui nous sont propres mm-hmm. ñu jël pousse ko ni ko demal parce que deux mandats moo xew ce qui est Je viens de la Chine, il n'y a pas ces histoires de deux Il n'y pas ces, de, radio à n'en plus finir et de télévision à n'en plus finir. amu fa caw lu bëree gi ci wax bi yëpp non dañuy wax non dañuy waxtaan ci wàllum évolution démocratique non non dañuy waxtaan dañuy waxtaan dama leen ni la finalité c'est le le bien-être des populations la finalité c'est le développement du pays toute politique ak lu mu mënti doon ak système politique bu mu mënti doon finalité may ma tuuti euh, Niger aujourd'hui vous savez il y de bottes no du dégg nga ko. Mhm. il y de bottes. am na wula am. am na am na y a une tentative de coup d'état le président est entre les mains même des. am na wula amul qu'est-ce que ça signifie le troisième ou quatrième ou cinquième huitième mandat dont on parlait tant en Afrique ku nekk di ñu sonal ak wax l'exemple c'est le Niger. way parce que on n'a pas suffisamment laissé ce monsieur là continuer politique bi mu doon def doxal li mu war a defal parce que état on ne gère pas un état un sur la base d'un seul mandat ak juróomi fan en Afrique c'est pas possible ce n'est pas possible le président Macky Sall avait d'autres chances pour le Sénégal continuer yeggali fi mu nekk parce que trajectoire bi mu ko tegoon c'est déjà quelque chose de formidable mais on ne recrée pas l'histoire li jàll jàll na ba pare ñëpp kontaan nañ ci nañu ànd kontaan nañ ci mais je prends l'histoire à témoin et le temps vous donnez l'exemple du Niger loo bëgg a wax que ne sans le président Macky Sall. je n'ai pas dit je n'ai pas dit ça Mamadou moi je j'agis sur des faits. oui sauf que faits yi nga joxe euh, ak Sénégal li fi xew. dafa mel ni loolu ngay craindre. lu mel noonu non xam nga géopolitique. Mhm. géopolitique. boo koy analyser. doo nii rek nii non. il y tout un ensemble. d'éléments da koy jël en compte jël ko en charge dama la ni avant que le président Macky Sall ne renonce pendant deux ans trois ans dañoo fatigué tous les activistes tous les soi-disant démocrates ak yéen ak yéen presse ñëpp taxaw nañ ci wax daan way le meilleur exemple aujourd'hui le champion de la démocratie il s'appelle Mahmoud euh, Youssouf aussi non non on, je ne dis pas le contraire non ça n'enlève rien à son mérite je ne dis pas ça mais qu'est-ce qui a été <laughs> qu'est-ce qui a été dit après way ko deful il y a des risques de ci ceci gis nga nigérians yi tey aujourd'hui mm-hmm. la plupart la grande majorité de ce peuple nigérian brave nigérien mm-hmm. soo leen laajoon tey situation bi ngeen nekkoon il y quelque temps mu continuer ak beneen mandat continue ñu nekk ci stabilité ak peut-être tey dañ la naan moo ñu gënal li ñu nekk tentative de coup d'État ak et cetera je n'ai pas dit que mooy am Sénégal je n'ai pas dit ça mais c'est les li nga xam ne mooy changement constitution yi. mais si à travers un référendum wala yu mel noonu. non non c'est le président Macky n'a pas renoncé parce que la constitution lui a dit que ni doo nekk candidat non non non pas du tout. Oui, c'est une non non yegguñu ci xam nga yegguñu ci donc mënuñu ju mënuñu juger a priori. non man li mënul comprendre mooy. ñu si si c'est le peuple qui décide ne warul woon defee defee def parce que li mu waroon a def def na ko. mais mais àndoo ci li mu def. non dama ci ànd dama koy soutenir dama la ni su ma laajoon. ce ne serait pas mon choix. d'accord am naa ci droit nag. il faut me laisser ça parce que xam nga lan moom mimétisme baaxul. Mhm. wax loo gëmul baaxul. baaxul nit dafay wax lu mu gëm. c'est important wax li dëgg ci moom. moi je ne fais pas du mimétisme. Mhm. je suis d'accord à l'épreuve aujourd'hui bi mu ko defee ba pare li ci baax yëpp ñu di ko rafetlu dama koy partager mais dama la ni c'est ça aussi l'histoire on verra ce que ça va donner mais dama la nii bi ñu toogee pendant deux ans ku ci nekk di wax ci dëkk bi la plupart de vous et de ce qu'on appelle les analystes et les observateurs yu ci bari dañ doon jël comme exemple en Afrique le Niger. Le oui Niger, ou non Niger, mais qu'ils aient qu'ils aient ouais, mais le Niger la xewee ouais, mais, mais dans d'autres pays la démocratie poursuit son chemin mais, mais, mais au Sénégal la démocratie ne s'est jamais arrêtée mm-hmm. pour la première fois depuis pour la première fois depuis que élection présidentielle 78 avec Senghor ak euh, euh, Abdoulaye Wade ñu commencé di ko def. Mhm. pour la première fois le peuple sénégalais va à l'aventure parce que xamuñu fu nu jëm il faut qu'on soit d'accord là-dessus en quatre soixante dañ ni bu dul Senghor ñëpp joxoñ di Abdoulaye Wade lay war a doon. Mhm. mu ñëw en deuxième position. 1983 xam nga passage du pouvoir bi ni mu demee diggante Senghor ak Abdou Diouf. Mhm. coow li bëri na waaye dem nañu élection. le président Abdou Diouf électorat bi yëpp ak population yi xamoon nañu si le président Abdou Diouf ne gagne pas c'est le président Abdoulaye Wade qui va gagner donc le jeu était clair xam mhm. nañu fi ñu jëm. pas ñu dem ba 88 c'est exactement la même chose bi pas la réalisation politique bi c'est tourné autour de ces deux hommes. Ouais. bu dul président Abdou Diouf président Abdoulaye Wade donc ça devient clair c'est transparent xam nga fi nga jëm mhm. parce que ku ci nekk wane loo xam ne waral nga ko mën a jox réew mi war loo ko jox réew mi en 93 c'est exactement la même chose ñu ñëw en 2000 le président Abdoulaye Wade taxaw le personnel politique s'est enrichi encore davantage ñu ni Moustapha Niass war na mën a jàll mm-hmm. ñii ni non non il faut que Ablaye dina jàlle le professeur Iba Day Diarra yàlla ko yàlla yërëm ñoo ñëpp ñoo taxaw et cetera ñoom ñëpp taxaw mais à un moment donné rupture boobu am na tey parce que 2007 moo ci topp 2007 sax même 2007 il y avait le président Ablaye Wade il y le, le président Idrissa Seck mm -hmm. il y avait Ousmane Tanor Dieng Moustapha donc il y on avait le choix. Mhm. choix bi dafa am. c'est-à-dire que aussi on a le choix. mais ma tuuti on avait le choix entre des hommes qui nous sont habitués à un jeu démocratique qui nous sont habitués à l'exercice du pouvoir et cetera xam nañu kan ku ci nekk li nga mën ak li nga mhm. mënul. xam ñu nit ñi kuñ ci joxit di dem par rapport à ton passé ton parcours ak li nga daan def ci politique ak say idée ak sa programme xam nañ ni le Sénégal resterait le Sénégal. ñu dem 2012 c'est encore plus intéressant ouais. Abdoulaye Wade euh, Idrissa Seck Ousmane Tanor Dieng Moustapha Niass euh, président Macky Sall et cetera yàlla def li mu def mais en 2024 vous faites des débats là-dessus les analystes waxtaan le en 2024 on, on va vers la... l'aventure. non non non pour non, la première fois. on programme. bu fi am ci bàyyi. oui mais loolu non espérons que bii pas choisir ci loolu. mais yaa ngi yaa ngi may invité. oui yaa ngi may invité ñoo ngi toog depuis une heure de temps est-ce qu'on a parlé de programme. non mais dañ ci yeggagul. non non duñ ci ci yeggagul li mooy boo nee aventure. en 2024 programme amu fi non non quand je parle d'aventure aventure elle peut être fructueuse. au résultat. comme avec Macky euh, non non mais mais non non c'est différent Macky le président Macky Sall il a prouvé avant d'être président de la République il a été premier ministre il a fait des choses attention ban waxee mu foofu son équipe ak ñi mu àndal ñëpp ils ont exercé ils ont fait des choses ils ont prouvé. am na ñu naan c'est un accident de l'histoire mais l'accident un accident alors quel extraordinaire accident pour le Sénégal yàlla na accident yi di mel comme président Macky mhm. Sall. par rapport ak mhm. oui oui pour pour pour dans l'intérêt du pays. mais dama ni aujourd'hui fi ñu jëm ni euh, euh, Mamadou fi ñu jëm nii yow ak man ñoo ci yem. vous ne savez pas qui au soir du 2 avril bi ñu jëm il sera président de la République fan la loxoy Sénégal jëm ci loxoy kan la jëm. Mhm. c'est c'est c'est pourquoi je parle d'aventure c'est pourquoi à dire qu'on va vers l'inconnu c'est un saut dans l'inconnu xamuñu ko tàmmuñu ko miinuñu ko dañuy ñaan rek kurus yi taxaw yàlla def ci li gën. li gën bi basculé loolu mbirum yàlla la mbirum bàttin la. mais ce qui mais li ngay junj yëpp xam nañ ne ma ma yegg li cest à dafa am lu yàlla moom. Mhm. yàlla moom lépp mais dafa am loo xam ne mbirum bàttin la non non artuuma damay constater. et je ma pose de question tout simplement je n'établis pas de conclusion man duma def def conclusion du ma ko def dama li voilà citoyen sénégalais la j'ai le droit de me poser des questions sur l'avenir de mon pays mm-hmm. et l'avenir de mon pays aujourd'hui m'inquiète parce que tout simplement 2024 on va vers l'aventure xamuñu kan la ak lu muy indi ak lan la mën sañ naa ko. mais ñuy yaakaar na ñooy gagner aussi il peut apporter quelque chose à ce pays. mooy ñaan ko ci mel ne Khalifa Sall Idrissa Seck. Karim Meïssa Wade Ousmane Sonko. xam naa sa wax ji yëpp moom moo tax ngay wax. mais ay nit lañ yoo xam ne parce que aussi. être président tu sais très boo waxul Ousmane Sonko kon da nga ñi ci des. non Idrissa Seck parcours Macky Sall la am. Khalifa Sall à peu près. Karim Meïssa Wade Idrissa Seck a pas le parcours de Macky Sall je suis désolé. waaw mais bokkul mais. ah non a pas jege na il a été ministre il a été député premier ministre. nekkuma foofu c'est-à-dire que ba léegi xamuñu fu ñu jëm d'accord nga ci mais ñi ci nekk ku ci nekk mën nga koo yor. on verra ce que ça va donner. ku ci nekk mën nga ko yor. waxuma la mënuñu ko yor de. Mhm. dama la ñun on se pose des questions xamuñu kan la c'est-à-dire fi may waxee ak fi ngay waxee. non mais boo nee xamuñu kan la c'est juste pour nous faire peur dans la mesure où mën a tomber ci ay mains yoo xam ne yu xaw a doy waar la. tournons cette page et parlons de mon parti. ñu dem ba tey sa parti sa parti bi le président Sall euh, décision tardive bi am na ay conséquences parce que tey jii nii tax na ba xamuñu kan la waroon doon après lui euh, tey jii bi mu nee dafay bàyyi gars yi ñu ko ne bàyyi nañ la suñu bopp loo wax d'accord nañ ci mhm. mais loolu ci ay kaddu la malheureusement gis nañu que ne am na ay manœuvres ci suuf jamono ji ñu bëgg nekk candidat bëri nañu xam nga tout à l'heure on ironisait yaa ngi ma naan lu tax nekkuloo candidat ak yooyu etc mhm. c'est-à-dire euh, je crois que ni annoncé ngeen ko ni vendredi ba la président waroon a wax il a reçu Benno Bokk Yaakaar il a parlé au secrétariat exécutif national de la la la PR mais qu'est-ce qui a été décidé dans ces assemblées bi ñu pare on vous donne carte blanche monsieur le président choisiral koo wax ñu ànd ci loolu la ñu wax en tout cas jaay ñoom ñëpp mm. tous ces responsables bi ñu génn mm-hmm. mais qu'est-ce qu'on a constaté ce n'est pas ça ne correspond pas ak li ñuy doxale mais je trouve que man dama jàpp ni tous les candidats yi fi annoncé yëpp bu fekkoon ni nekkuñu candidat wala li ñuy wax neexu leen dinañ taxaw démentir ko tous les propos qu'on leur prête toutes les intentions qu'on leur yooyu yëpp bu fekkee nekkuñu koon wala doxalewuñu ko ñu ñu duñu ñu bàyyi muy jàll mais qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui mooy ça fragilise un tout petit peu autorité président de la mm-hmm. qui doit choisir parce que dañ ko yóbbu ci benn niveau boo xam ni il est boo amul chance de choisir Massamba au détriment de Mademba mënoon na mënoon na mënoon na woyof mm-hmm. mënoon na woyof ma li may wax waxuma li ma li ma bëgg affaire yi déedéet waxuma loolu je parle des réalités ce qui se passe ce qui s'échange entre ñun. Mhm. ñi nga xam ne ñoo seq parti bi nekk ay responsables les gens sont dans la gêne. Hmm? nit ñi dañu gêne wu c'est ça ah, la vérité. c'est la vérité parce que y a une animosité ambiante buy am ci diggante nit ñi vous avez vu ce qui s'est passé au siège du parti. Mhm. ça c'est pas une image honorable loolu koo xam ne da nga bëgg ni dans quelques mois war nga dem à la conquête. <laughs> de l'électorat des électeurs war a mën a gaje mais dynamique unitaire rek moo war a mën a taxaw te loolu je crois que ni ñoom ñoo ci waroon a joxe le bon exemple à partir du moment ñoom ñu taxaw ni président bàyyi nañu la carte libre nga def lu la neex après lu ci mënti am ñun ñëpp dinañ ko àndandoo ce leadership collectif boobu ñun loolu lañ soxla mhm. mais les les les les les les les démarches solitaires aujourd'hui mu ngi yàq lu bëri loo xam ni sa risque de nous être fatal le jour où le président choisira quelqu'un est-ce que mën ngeen ci daal est-ce qu'il y a man li ma mën lay wax rek man awma daraja boobu awma kàntan boobu awma xëy na peut-être sax légitimité politique boobu et mhm. historique lu leen neex man nañ ko wax mais en tout cas moi je trouve que d'abord yabeel daf ci am parce que dañuy non parce que non dañu dañuy friser dañuy dañuy dañuy wàññi autorité kilifa dañuy fragiliser des mm. moins autorité kilifa gi ñaareel bi même militants yi ñun dañu mettre mal à l'aise et c'est ça qui est dangereux mm-hmm. pour ñoo xam ne dañu war a nekk une équipe très soudée ñu ànd ci ku nekk sa morom gën a la est-ce que nekkul à l'origine de ce malaise aussi est-ce que ko mais que ce soit président Macky Sall wala keneen ku mu mënti doon moi je parle de ce que nous sommes en train de vivre. constat bi yow ci nga yem. je ne suis pas de responsabilité. ah mais il le régler affaire yi. mais ils sont donc tous responsables. parce que c'est une situation là qui n'est pas du tout favorable à la à, à la conquête du pouvoir ce n'est pas du tout favorable parce que ci monsieur là koo ci wax ñu ne am na mais bu fekkee ni li ñuy wax mu ngi ci ñoom d'accord na ko nekk mën nga am ambition. Mhm. mais ils n'ont qu'à quitter Mhm. faire leur propre ah oui bien sûr nga demal sa bopp boo wóoloo sa bopp yaakaar ni war nga mën a demal sa bopp da ngay dem mhm. nga bàyyi pax parce que ce qui est curieux benn bokk yaakaar doo dégg ñeneen ñi yooxu les alliés ils sont très disciplinés donc mm continuer conformer wu ak seen engagement mais après rek ñoo koy def mais vous avez aussi enregistré des départs Assom par exemple dem na Aziz ñu ngi koy wax sànq euh, asom moom li mu fi mu demee dafa dafa xaw a doy waar nga bëgg a waxtaan bëgguma ko yàq li ma bëgg a wax mooy tey jii nii déjà ay démarches solitaires aussi non da nga bëgg a yàq waxtaan bi parce que bëgguma personnaliser mais que c'est pas ça que moi je ah. veux parler de l'essentiel ce qui est important euh, euh, ñi ngay xam ne dañuy taxaw ni dañu laaj ñoom ñëpp de manière solitaire ku ci nekk jóg taxaw. Mhm. yaakaar ni yow yaay waaj décret présidentiel moo leen jox légitimité bi ñu am. c'est la légalité gouvernementale qui leur a conféré une légitimité politique. on marche sur la tête. dañ leen def ndomale ndomale ba pare nga mhm. door a daw wuti ji base. donc nañu respecté tuuti nit ñi xam ni légalité gouvernementale boobu. Mhm. par le décret. tout simplement kenn ku ko président defaloon ci ñeneen ñëpp war nañu mën a taxaw jàkkaarloo ak ñoom taf donc bu fekkee ne ñu ngi koy def depuis dix ans di ko def depuis douze ans gars yi jàpp seen jàmbur toog muñ kenn waxul dara. Mhm. mais ngir yàlla même respect boobu ñu leen jox. par rapport à l'autorité par rapport à la décision de l'autorité par rapport à la confiance bi ñu jox président bi ni ko defal doxalal parce que la finalité l'important c'est de construire ce pays. mais noonu la ñu war a continuer noppi jàpp seen jàmbur toog ba mu décider ku ñu décider ñu ànd ci ngor bi ak même ngor bi ñu toogoon ni waaw mais ñun ñëpp kuñ ci daawul name dara wala ngay wax ñun ñu échanger seen bi ñoom ñooy njëkk taxaw ni la muñal mhm. non tu sais président bu waxee rek mooy kilifa gi de mais aujourd'hui ku ci nekk ñu wax ko ci kaw mhm. ak ñàkk wax ci kaw ñoo ci yem ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñu ngi travailler qui mobilise des moyens énormes ku ci nekk di def li nga def dama leen wax ni la aujourd'hui dynamique unitaire bi nga xam ne l'élan unitaire l'élan mën na amati parce na am mën na am mën na ah. am ce n'est pas ce n'est jamais trop tard mm-hmm. ce n'est jamais trop tard pour bien faire moi je crois que ñoom ñëpp war nañu mën a toog parce que qui ne dit rien consent dañ noppi ñoom ñëpp chaque jour presse bi bind fi wax fi affaire mais je n'ai pas vu un seul ci ñoom ku ci ku ci ku ci taxaw démentir. mais est-ce qu'ils font est-ce qu'ils font confiance au président moo xee loolu mooy on dit que le président am na intention dellu si waat ci jeu politique bi l'opposition fait allusion peut-être aux réformes yi nga xam ne mi ngi koy def jamono jii jàpp ne nit la ko xam ne il veut placer koo xam ne gënul ci parti bi mais moo gën ci moom. kat ma wax loolu opposition ñoo wax. l'opposition la di les Sénégalais le soupçonnent. oui ci voilà que mën na ñëwaat. na fa lu mu waxul. wax na fi lu mu deful. def na ko il avait promis cinq ans il avait maanaam loolu tàmm nañ ci politique non non engagé à faire cinq ans il avait proposé diminuer son mandat le conseil constitutionnel lui a n'a pas proposé il engagé. mais ba engagé yow te nga am lu la limité da ngay taxaw loolu débat yi jàlle la. cest que parlons de l'avenir mm-hmm. de ce pays mais en tout cas moi c'est candidat. maanaam ñiy siisu li ma bëgg a wax mooy li tax ñu ko ñu def ko est-ce que tamit amuñu lu craindre en fait. que ñoom la xëy na ñooy le meilleur mais président mën na jël boo xam ne gënul ñoom. mais benn choix rek fi am benn nay am c'est vrai. waaw kon kay meilleur par rapport à quoi. le profil ils sont meilleurs par rapport à quoi et par rapport à qui. parce que yaa Abdou Mbaye même à part Abdou Mbaye Abdou Mbow ki donnait ay critères pour choix bi waxee na euh, ancienneté maanaam ñi nga xam ne ñoo fondé parti bi mais aussi euh, base parce que jàpp na ne lu am solo la. parti bi bi ñu koy fondé deux mille. deux mille huit la. Mhm. bi ñu ñëwee élection avec toute la coalition Macky deux mille huit vingt six pour cent la ñu am. bi ñuy gagné soixante cinq pour cent. la ñu am ñëw après moo tax ngeen. non dañuy waxtaan rek. 65 pour cent la ñu am waaye ñooñu est-ce que xalaatoon nañu ñu sànni leen ci biti ñoom ñëpp donc cette histoire d'historicité que moi pour moi c'est pas ça le plus important le plus important. Mm-hmm. mooy pendant 12 ans ñoom ñëpp noppi nañu. ku ci nekk loo wax ñu ne kilifa gi wax na. Mm-hmm. waaye ngir yàlla buñ ca yeggee nañu bàyyi kilifa gi li mu wax ñu def ko moi à mon avis on aurait pu peut-être procéder autrement. Mm-hmm. lu ci nekk mën na am buñ ko waxtaanee. par exemple aujourd'hui tous les maires du. du Sénégal nous sommes 557. Ouais. nous contrôlons 470 et quelques mais ma nañu demander par exemple à tous les maires bu ci nekk ci commune bu ci nekk ñu ne na ku nekk def proposition. et parmi tous les candidats non ñu bàyyi ñëpp na ku bëgg a nekk candidat rek mm-hmm. ne candidat lay doon non proposition. après peut absurde li may wax mais. Mm-hmm. voilà ñu ni par exemple candidat bu la. bu bëgg a présenté wu na présenté wu à la candidature. gars à partir de ce moment mairie ku ci nekk wala responsable yi mairie mais mairie sax. élus yi rek président conseil mm-hmm. départementaux yi tous les élus ku ci nekk wate ñu xool déjà di nga dem ak légitimité. au moins quand même. Euh, populaire ak yëpp tout. Mm-hmm. deuxièmement que les autres acceptent kuñ ci désigné rek nga topp ci gànnaaw. ah Ibrahima si la machine la machine fonctionne comme ça ñun ànd noonu ni ñu doon ànd on ne perdrait pas ce pouvoir. Mm-hmm. mais par rapport à des égos. bu fekkee ni ñoom parce que ils se sentent suffisamment à l'abri de tout ñoo war a mën a tax nag léegi mu des lu dul exprimer ay ego pour nous faire perdre ce pouvoir je dis bien je pèse bien mes mots ça excusez des termes de la lâcheté mm-hmm. te loolu baaxul loolu baaxul non baaxul baaxul parce que il y a des milliers ouais. et des milliers de militants qui sont là qui continuent de les supporter de les de, de nous battre chaque élection dans la dignité mm-hmm. taxaw te ils n'ont même pas ces privilèges donc ouais. il faut pas que aussi nous arriver à un moment boo xam ne mm. c'est l'avenir de la coalition qui est en jeu c'est l'avenir de milliers de militants des millions de militants qui sont à travers le pays et la diaspora mm-hmm. seen avenir moo nekk en jeu ñu di ko foye par rapport à des égos nous ne l'accepterons pas et nous ne dernier point depuis un certain temps xëy na gis nga benn décrispation euh, côté justice bi am na ñu ñuy bàyyi ñu bokkoon ci ku jégi euh, Pastef principalement côté Pastef aussi on voit que le discours a un peu changé euh, li ñu doon waxee xaw na wàcc ñu bëri jàpp ne am na fu ñu jëm loo xam ne mën na permettre sax que Ousmane Sonko ñu dem ba abandonner poursuite yi président Sall impliqué wu ci ñu permettre ko mu dem élection et que Pastef nañuy organiser woo la ñuy doxaleeg nañuy def c'est leur totale liberté aw ma ci appréciation. dans l'intérêt du pays. non non ils ont une formation politique. oui ils sont indépendants. ça ne concerne non non mais d'accord ak man dañuy mhm. comme ils les entendent. ñun oui. nous avons suffisamment aujourd'hui de problèmes. Mhm. <laughs> ñun mm pour am candidat parce que. mu ngi mel ni dafa am suma benn jigéen bu bokk benn ba ko yaakaar nit ku baax xam naa mu ngi dégg sax li may wax ni may waxtaanal fan yi mu ni ma mu ni ma dafa mel ni daal euh, avec le départ du président Macky Sall daal jën yu mag yi jeex nañu man ko kon de xam nga li ci topp yaa booy rek fi des te nag giiroo bi ku ko moytuwul fat la ñuy mujj et cette image là je crois que c'est très important mm-hmm. ñu deful attention on risque de perdre sa pouvoir alors que sociologiquement nous avons la majorité dans ce pays c'est ça la vérité nous avons la majorité et nous pouvons surfer sur les succès extraordinaires qu'a eu le président Macky Sall à travers même des gens qui ne l'aimaient pas et qui daf mel ne li ma laaj déggoo ko waaw non dégg naa li wax déggoo ko tontu da ma bëgg a laaj ci yëfu jàmbur waaw bëgg naa ci am sa avis parce que lan nga bëgg parce que parce que euh, yamatul rek ci ñoom en maanaam lépp lu mënti am concerné leen dafay am benn impact boo xam seen kàddu koy yëg la preuve. la preuve a wax. jamono ji Ousmane Sonko mi ci ay mbir yoo xam ne xëy na bu aboutiré du bokk ci élection yi jëm. ñu bëri craindre nañ ko les procès en cours. Euh, affaire Mambay bi affaire Adji Sarr bi euh, le président la dernière fois mi ngi naan il va assurer la sécurité de ce pays te ñu bëri